mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziare di ziare mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel euh, mu mel ne nag ñi ngi toog ak euh, kenn ci responsable yi daayira Muxaddamatul Xidma euh, ñu nekkoon fii ci kër Serigne Touba gi ci jumaa ji tey nag di ñaari fan ci weeru safar ci atum 2020 incha allah ñu nekk ci waajtaayu màggal gi bala may commencé rek dama koy jox mu présenté wu laaj bi ma koy njëkk laaj rek xëy na mu boole ko présentation bi Euh, mooy dajab tey bii nga xam ne Muxaddamatul Xidma ñoo ko amal ànd ko ak daayira wilaaya euh, lan mooy sabab bi sëñ Abdoulahi bu fekkente ne présenté wu nga ba noppi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbooleem téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu sëñ Bada mi ñu seqal jataay bi man maa ngi tudd Abdoulaye Diop bokk ci jëwriñu daayira Muxaddamatul Xidma waaye nag tey ma taxawee fii ci taxawaayu commission organisation. di benn kuréel boo xam ne mu ngi bokk ci comité d'organisation bi nga xam ne mooy yor saytu màggalu tuuba te Serigne Bassirou Abdoul Khadir Mbacke jiite ko commission bii nag di commission boo xam ne Serigne Cheikh Marème Mbacke moo ko jiite ay cahier de charge am wala boog li ñu ko dénk ci màggal gi bokk ci dalal gan yi kilifa diine yi dalal leen di leen teral di leen toppatoo ba diiru màggal gi jeex ci barab yi nga xam ne mooy barab yi ñuy dalale gan ñi muy kër sëñ Touba gii nekk ci jumaay Touba gi ak kër sëñ Touba gee nekk ci Darou Manaan ak fépp foo xamante ni seen gan ma nga fa rek ñu war koo toppatoo liggéey boobu nag ñu dénk ko euh, ñaari kuréel yoo xam ne dañuy wax ne ñaari kuréel lañ waaye benn kuréel la ndax benn jëmm bu am ñaari tur la muy mu daayira Muxaddamatul Xidma bi ci jumaay Touba ak daayira wilaya bi nga xamante ni moo ëmb mbooleem section yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñoom lañ dénk liggéey boobu ni ko waxee nag tey nag ñu doon daje ngir nekk ci waajtaayu màggal gi Euh, waajtaayu màggal xam nga ne màggalu Touba daanaka at mi yëpp dañ koy wàcc di ko def ay daje waaye nag tey dañoo toll ci ma dernier réglage yi. dernier réglage yi mooy lan yan waajtaay lañ war a jël nag ci gan ñi ni ñu war a ñëwee nuñ leen war a toppatoo yan jafe-jafe lañ ci amoon daaw. jafe-jafe yooyu nan la ñuy def ba saafara ko ak yan moo ci bees ren ndax ku nekk xam na contexte bi nga xam ne moo am ren ci wàllu mbas mi loolu itam jar nañu jël ci ay waajtaay yu mag ndax sëriñ bi soññee na ci muy Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye sëriñ Bass Abdou Khadre soññ nañu ci waaye itam am na taxawaay buñ ci war a def ngir gan ñi daal ay gani kilifay diine lañ te war nañoo màggal si ba dem màggal gu mucc ayib te dara du leen fi toppale dul jàmm ak salaam kon daal dajab tey bi loolu moo doon solo si. Euh, sëñ Abdoulaye ñu ngi jaajëfal baax a baax ci présentation bi ak euh, solos daje bi ak li ko waral. Euh, ci ñaareelu laaj bi rek lañ jëm junj nga ko sax muy ci jamono ji nga xam ne ci la ñuy amale màggalu 18 safar. Euh, muy contexte bi mooy mbas mi nga xam ne moo lëmbi àdduna bi nga xam ne euh, bariwul fu mu àggul ñu am ci taxawaay yoo xam ne moom lañ ci war a am ku ne gis na ne sëriñ bi ni mu ci soññee ci waajtaay wi waaye respecte mesures barrières yi waaye nag euh, ñaan yàlla suñu borom jëlee ko fi mu Moukhaddamatoul Khidma ku ne xam naa ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu accueil bi ni waa wilaaya yore wàllu dalal bi ak hébergement bi ñu bëggoon a xam rek yan wuute moo am ci màggal yi weesu woon ak bii ndax ku ne xam na ne bii dafa am eh, leneen lu ci laxasu muy Covid 19 bi ñu ñaan suñu borom jëlee ko fi ñu bëggoon rek xam yan disposition la waa Muxaddamatul Xidma jël ngir gan ñi ak ni ñuy ñëwee ak xëy na bu ñëwee ci nekkin wi. jërëjëf sëñ Bada ci laaj bi xam nga màggalu Touba moom day bis boo xam ne muy 18 safar bi sëriñ bi moo ko woote woon bi mu ko wootee ñëpp daan ko wuy si bi mu fi jógee tam ñi ko fi wuutu la ko dala ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci euh, Cheikh Sidil Muxtaar mi ci mujj toog ab jotaayam ñoom ñëpp it fas woote boobu lañ ko doon woote ñi di ñëw di màggal si Cheikh mun taxaa mii fi nekk yàlla na fi yàgg noonu it la ko wootee waaye woote bi bi nag xaw na wuute ak woote yi nga xam ne ñoo ñoo jiitu woon ndax ni nga ko waxee mooy euh, contexte bi ñu nekk muy contexte pandémie bi muy mbas mi fi nekk loolu ba tax na Cheikh mun taxaa joxewoon ay recommandation ci ne nañu respecté ndigali docteur yi waaw ñi nga xam ne ñoo du mbirum àddina te yor mbirum wér gu yaram li ñuy santaane nañ koy bàyyi xel waaye teewut nag itam ndigalul sëriñ bi moom ñu mën ko wéyal kon nag ñu itam ci loolu la ñuy sukkandiku bëgg boole ñaar yëpp ren danañ fexe ba li sëñ bi santaane ci màggal gi ñu matale ko waaye itam mesure yi nga xamante ni mooy mesure d'hygiène mesure barrière yi nga xam ne moom la kër docteur yi wax yooyu itam ñu koy bàyyiloo xel loolu itam la ci njëkk nga xam ne jéego bi ñu ci njëkk def ci commis sous commission accueil bi Moukhaddamatoul Khidma yor mooy fexe ba gan ñi teel a yëg ne màggal gi ren nii lay demee loolu tam jokkoon nañ ceeg ñoom ci bind leen ay correspondance ay lettres yoo xam ne ci turu comité d'organisation Serigne Ousmane Mbacké Gaynde Fatma moo ko signé ñu envoyé leen ko ndax ku nekk xam na ne gan ñi dañ daan bàyyi rek ku nekk nu nga ñëwee nu mu la neexee waaye comme jamono laajatu ko te xëy na encombrement bi muy ni ñu daan xat-xatloo ci wàllu dal yi loolu itam doonut lu gën ñu ne kon jafe-jafe boobu pour mën koo jéggi nañ leen teel a yëgal ñu teel a yëglu ku ci nar a ñëw confirmé ne da nga ñëw ñu wax la ne la nombre bi nii lay toll lool def nañ ko ba ñoom ñëpp ku ci nekk envoyé nañ la correspondance yooyu waaye itam wër nañ dal yi nga xam ne fa lañ war a dal itam dal bu ci nekk la mu laaj ci wàllu jumtukaay waaye itam ci wàllu espacement loolu itam def nañ ko ba nga xam ne mboolem dal yi fu gan war a dal rek Euh, bàyyi nañ ko xel waaye itam mm, yokk nañ ci liggéey bi ren loo xamante ni euh, moo ëpp solo muy sous commission boo xamante ni xëy na amoon na sax santé waaye dañ caa dolli hygiène ngir bàyyi xel gan ñi fu nekk ci cet gi raxasu bi ci gel yi ci masque yi fexe ba ñu respecté ko ba nga xam ne gan ñi diirub lañ fiy nekk duñu am benn jafe-jafe ci wàllu santé waaye itam fexe ba sécuriser itam fi ñuy nekk ba nga xam ne kenn du leen fa mën a encombré benn euh, xat-xat loo du fa am ndax ku nekk xam ne ren ay cérémonie officielle ak yooyu yëpp euh, mm, amul ren génne nañ ko ci màggal gi kon nag seeniwu nekk itam war nañ koo mën a gën a saytu kon daal mesure yooyu jël nañ ci yoo xamante ni ay mesures fortes yoo xamante ni fii ci réunion bi leeral nañ ko fi ci kanamu jëwriñ yi nga xamante ni ñoo séq jataay bi mu diggante mu Muxaddamatul Xidma ak wilaya. macha allah Cheikh euh, Abdoulaye Diop ci kaddu yi am na solo xam naa li nga ci junj mooy waajtaay wi xam naa jombul dinañ amalaat yeneen daje ak yéen. boo ko defee gën a xóotal bu baax a baax ci point boobu waaye gannaaw dañoo nekk ci euh, phase première bi mën naa ne mooy waajtaay wi. Eh, moo tax xëy na foofu la ñuy yemandi di la jox kàddu gi rek euh, ban message ngay jottaliwaat rek ngir waaj taay wi ak lan ngay jeexale te eh, jërëjëf sëñ Bada xanaa li ñuy jeexale rek mooy euh, ni ñu ko waxee képp koo xamante ni xëy na yaa ngi seetaan euh, ndaje mi nii nga bàyyi xel ci li ñu tax a jóg dara taxuñoo jóg lu dul wéyal ndigalul sëriñ bi rek te ndigalu sëñ bi ni ma ko waxee ju ma ko junjee ci biir kàddu yi mooy ñaari xaaj yi mooy fexe ba sëñ bi li mu bëgg mu am ko waaye itam du ñu juyoo ak ñu yor mbirum àddina ndax kat loolu sëriñ bi sëñ sëñ bi bi mu fi nekkee ci àddina noonu la fi nekkee woon. nekk na fi ba jóge fi lépp loo xamante ni tu euh, ñu yoroon atteb àddina mas nañ ko demandé te muy loo xam ne diine terewu ko loolu la ci daan taxaw. ci ay guerre mondiale ak yu baree bare yoo xamante ni daana ci joxe ay nit bi mu fi jógee Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ni mu taxawale jumaa ji ba ni mu indee raay bi Touba loolu lépp itam lu ci war a diisoo ak ñi ci ñor mbirum àddina da ci daan diisoo ak ñoom kon ñoom ñëpp ci loolu lañ nekkoon ñu itam ci loolu lañ fas yéene nekk ba fexe ba li bi bëgg mu am ko waaye itam lépp loo xamante ni nit ci àddina yi itam sàkku nañ ne mooy tax dund gi gën a yéwén loola ñu mën koo amal loo xam ne du yàq suñu diinee ñu mën koo amal loole ca la ñu nekk loolu na kon ñi ngi ñaan ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi ñëw fii jàppale lañu ci loolu ba benn jafe-jafe du am sëñ bi li mu am mu bëgg ko ndax bëgguk sëriñ bi kat euh, mooy suñu bëgg ndamam mooy suñu ndam ñun loolu rek la ñuy ñaan di ñaan suñu borom àgg lañ ci bis beeg jàmm te ñu def ko ni mu gënale sëriñ bi te mu nangul ñu ko jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Abdoulahi ci kaddu yi am na solo macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñuy fàttali ne eh, jëwrin la ci daayira Muxaddamatul Xidma waaye mu teew ci tant que responsable ci comité d'organisation bi kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba beneen yaaneen jotaay incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf